oui tàmm nañu ko gis ci njiiti réew ci bu nu ko falee yees nday xadi ni nga ko waxee et je pense que ne li président de la république def Bassirou Diomaye Diakhar Faye man pour man continuité la parce que boo fàttalikoo ci korité gi julli gi am na kàddu yu mu yëkkati euh, di fàttali solo si nga xam ne la ëtt këru diine yi am rawatina kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci ëtt këru euh, diine yi et je pense que ne tey bu yëkkatee Euh, euh, dàllam sol ko wutali ci Touba Mbacké seeti ji euh, xalif général de Mourides dafa mel ni continuité la par rapport ak kàddu yu mu yëkkati woon et c'est dans l'ordre normal des choses ni nga ko waxee parce que mbir mi sax dem na bay mel ni tradition tradition bu nga xamante ne ni fàttali nañ ko Senghor Serigne Fallou sëñ Abdoulaat ki nga xam ne moo di président Abdou Diouf sëñ Saliou Abdou Abdoulaye Abdoulaye Wade ki nga xam ne moo di le président Macky Sall Serigne Euh, Bassirou Mbacké wala ki nga xam te ni moo di euh, xalif général euh, des Mourides Sëñ Mountakha Mbacké ba ci tey moom mi ñëw yor réew mi dem seeti ko day war et je pense que ne du yem ci Touba dina wër ëtt këru diine yëpp loolu dafay gën a ne kon ñoom kilifa yi am nañu cër bu baax a baax encore une fois suñu ay këru diine te loolu la war a demee parce que Sénégal noonu lañ xamee ñaari jëm ñaari kër yooyu dafa am solo muy le pouvoir temporel bi ñuy wax ak pouvoir naturel bi nga xam xam ne qu'un président mën na ko exercer ci réew je pense que lu ñuy rafetlu la. président Lamine Gueye gis nañ ni ci ndorteel li ñu ngi doon wax ni gëmul sëriñ yeeg euh, dafa mel ni dafa beddi suñu kilifa diine waaye yaakaar naa ne euh, jënam bu njëkk mu dem ko Touba rek euh, bu demee Touba mel na ni dem na ci yeneen kër diine yépp kon lañ doon wax ci ne suñu tarixa yi fonk leen dafa doon mbir moo xamante ni tey firndeel na ne amul. waaw day wan ni rek euh, mbiru politique moom mbiru politique la rek. Mm-hmm. parce que ñoom seen biir langue politique ñoo waxante woon ay kàddu ba yooyu jib fa. mais je pense que président bi Bassirou Diomaye fay ci réew mi la dëkk fi la judd fi la màggee am fi ay euh, papa am fi ay yaay am fi ay arrière grands parent te ñëpp aussi dañ leen nampatal ci li nga xam ne moom mooy réalité réew mi. Mm-hmm. Euh, mooy réew mi islam confrérique la. Euh, boo bokkul fii rek bokk fële je pense que ça a toujours été comme ça euh, rawatina nag sax euh, même boo bokkul sax ci diine lislaam bi nga xam ne sax peut-être moo boole ñi ëpp lim ci citoyens yi nekk ci biir réew mi gis nañ fi sax président Senghor bokkul woon sax ak diine yenn ci kilifay diine yi te gisoon nañ seen relation ni mu rattaxee donc lii nii li nga wax la rek li ñu doon wax la mais lii day firndeel ni dara amu ci et je pense que tey jii euh, ñaari pouvoir yi muy spirituel ak pouvoir temporaire bi euh, dañoo war di lëkkaloo euh, ndax it diine mënoo ci génn politique politique dafa nekk ci biir diine et je pense que sallallahu alayhi wa moo njëkk a créé par état islamique ci jiite ko ba pare sax mu am ay minorité yoo xam ne duñu woon ay jullit ñu assurer euh, seeni ay droits donc je pense que lu naturel la et président bi aussi ku ko xool gis ko xam ne nit ku am yar la nit nàmpatal ci diine la et je pense que loolu c'est naturel c'est naturel leneen loo xam ne nag dafa war a naturel moo di nga nekkatul ministre ñu daal di dindi sa passeport diplomatique bu ñu sukkandikoo ah, ci kii fi nekkoon na nag ah, rek chefu bureau ah, li nga xamante ni moom moo di rek bureau foofee ca ministère des affaires étrangères daal di sàlloo lépp lu jëm ci wàllu presse di Samba Mangane moom jàpp na ni képp koo xamante ni nag daal di nga wàcc nekkatoo pratique te itam li nga xam te moo di décret euh, bii président Macky Sall mujjee def euh, te itam tey ji nguur gu bees gi daal di ko dindi lu euh, mën a lu xel mën a nangu la ñu teewlu ko ci moom Samba Mangane passeport diplomatique ñi ci am droit mooy président la République en exercice wala ancien président de la République ak euh, membre du gouvernement yi am na ñoo xam ne ci gouvernement bi suñuy jeexalee ancien ministre des affaires ñooñu dañ koy am wala ministre boo xam ne ànd nga ak euh, président yi début mandat ba fin mandat ñooñu aussi dañ leen koy faral di di jox donc ci fonction bi la loolu yëpp nag soo ko nekkatul su mooy ancien président yeeg ancien ministre des affaires étrangères bu ñu ak teranga ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo koy may président de moo mën a may passeport diplomatique keneen mënu ko may xëy nag euh, administration liggéey amul bés décret bu la neex nga koy signé bon loolu nag ki nga xam ne moom moo moo yor fonction boobu tey yore ñaar su ngeen dajee tey aéroport ah, ku nekk yor fonction ministre bi loolu du poser problème ñaari ministre ñaari kuy mënu ñoo nekk ci mbal ga njiitu réew mi eh, daal na nag sàkku ci fonctionnaire yu état bi ak agent yi ñu daal di def nag preuve transparence ci lépp loo xamante ne daal dina ñel wàllu administration bu eh, Sénégal moom Bassirou Diomaye Faye eh, daal di rek faxe ba sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy liggéey ngir état daal di nag ñuy jub di jubal dañ ci ànd ak xalaatu askan wi ginnaaw bi nga xamee ne daal dina becc yooyu kàddu njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye eh, mi ngi woo fonctionnaire yi ci slogan wu jub jubal ak jubanti lu ni mel nag askan wi daal dinañ koy rafetlu bu baaxa a baax. looloo tax ñu farlet jub jubal boobu lañu bëgg ñu jubal dëkk bi jub kayit yi waru ñu nekk kenn ku ne boolaa ngay jot kayit foog ñu weexal yooyu dafa war a deñ weer bu dee lañ leen fay kon nag bu ñu ñëwee nit di wut kayit bu ñëwee dañ ko war a signé tàmpal dem yoonam. Sénégal instant lenn rek moo ko mën a defar. mooy jël administration Sénégal teg ko si yoon parce que mënoo nekk sénégalais ni ñëw bëgg am euh, benn papier par exemple bëgg def deux temps administration bi euh, am na loo xamante ne si boo ko bëggee danga koy am si kaw nga génnee xaalis te loolu du yoon ger moo fi war a jógee këyit bu ñu la war a jox nga citoyen war la ko jox normal di laaj xaalis loolu ma yàq réew mi da ngay ñëw ma déposé nga déposé nga neexle man duma am moom am wala mu jëkk la am lu yàgg ngay xaar niki noonu ñenn ci askan wi jàpp nañ ni warul yàkkam ci dara ci boobu application fii ci Sénégal loo gis début bi dina métti quoi mais au fur et à mesure adapté wu ñu dind yu bëri bu ñu ko dindee xam na loo xamante ni si dafay jeex. moom lu mu bëgg def dana ko def gaa yi luñ ku bëgg a liggéey Sénégal buñ la ko defloo di nga ko def boo ko bëggul nag ñu faxas la rek dem wuti keneen ko ko bëgg def mais nag bu mu ko yàkkamti na ko def ndànk-ndànk rek. njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ngi encouragé fonctionnaires yi ak agent de l' administration yi teyit it di leen woo ci jub jubal gu mat sëkk. mu nga kon Mohamed gis nga ko lu jëm ci uh, wàllu uh, mesures yi ñu jël ci passeport diplomatique yi uh, ñu bari ñu ngi ci ŋàññ waaye bu ñu xoolee ba ci biir dinañ xam ne boo nekkoon ca place ba nekkatoo fa nag lépp luy lenge war nga koo jox. ni nga ko waxee ndey xat yi li ni Sénégalais war a xam ci wàllu passeport diplomatique yi déjà privilège la privilège la bi nga xam ne. Euh, li ko tax a jóg du ay euh, du avantage rek ay individu ci num la neexee euh, privilège la bu nga xam ci dafay assurer plutôt accompagnement évidemment mission wala fonction loolu ñëpp war ñëpp xam nañ ko et puis ki koy yor su boobaa wala kii avantage day doon su boobaa un représentant de l'État ay la yowén nag buñ ci demee kooku ki ko war a yor moom la ñu woowee un serviteur de l'État loolu mooy passeport diplomatique li ci ëpp solo nag mooy mission boobu wala lu jëm ci Euh, fonction boobu bu amatul ay la yowén <laughs> li gën te mooy nga delloo boobu lekk passeport diplomatique wala ñu foqati ko Sénégal nag la ñu nekk malheureusement réewu euh, lijjanti euh, réewu diw sama xarit la ba looy gis mooy réew mi ko gis muy dox am na passeport diplomatique te loolu li koy findeel gis nga scandale yu mu fi andi yàggul dara ci trafic yi nga xam ci nemeeku nanu ko te loolu lépp itam je pense que ne ay la yowén fu ñu ci toll nii jëm koy lijjante régler ko mu féetee boor day gën lool euh, que ñuy dem ba muy ëppi loxo su ko defee sax sur l'international ak suñu naataango yu nekk ci biti réew mën duñu naw par rapport ak euh, passeport diplomatique boobu man daal mission ak fonction ku ko yorul euh, te amoo état yónniw la nekkoon représentant de l'état pour man yore fonction wala yore passeport diplomatique Euh, lu la neex rek sa bakkan nga ko teg te su boobaa itam euh, mesures yi autorités yi jël da nga koy rafetlu ndax sénégal yëpp euh, dañ ci dañ ciy gis seen bopp ci boobu lekk mesure. président